ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه jëlee nañ ci suñ sang abu mas'ud al ansaari yal na yàlla gërëm ko qaala mu ne qaala rasulullahi yonentu yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wasallama wax na xusiba rajulu mimman kaana qablakum waaye ngi ci xeet yi leen jiitu dañ ko regle falam yujad lahu min alxayri shay fekkuñ di ko ñeel dara dara dara ci aw yiw falam yujat fekkee fut lawoo ñeel ko minal xayri ci yiw shay'un dara amul ci aw yiw tus jamtalu na ne lim daan def yëpp yàlla nanguwut ko xam nga kon du am dara illa annahu kaana yuxaalitu nnaasa lu dul ne moom daal ku daa jaxasoog nit ñi la wa kaana muusiran borom alal la woon fa kaana yamuru xilmaanahu mu daa digal xale mi an yatajaawazu anil mu'siri ñuy jëggal ñi am jafe-jafe way ñàkk yi kaanu fa kaana nekkoon na yamuru di digal xilmaanahu ay goneem ñi ko daal liggéeyal arab na xulaam dana koy faral di ko tuddee ab jaam an yatajaawazu anil mu'siri an yatajaawazu ñu baal anil mu'siri aji ñàkk ki nekk ci jafe-jafe maanaam moom daal jaamu yàlla am xëy na demeewutoon noonu lam ci amoon a bon it nangawuñ ko waaye yàlla am na lum xool mooy boroom alal la woon daan jëndante ak a jaayanteeg nit yi di lebal lanteeg nit yi waaye képp koo xam ne jaay na la mbaamu lebal la te sa mën-mën demeewut noonu xaleem yi yore business am dafa leen di wax ne kooku bàyyi leen ko bu ko sonnal bu leen ko laaj jéggal leen ko qaala yonentu sallallahu alayhi wa ne qaala allahu sama borom subhanahu wa wax ne naxnu axaqu bi dalika minka ñun ñoo la gën a yell ci loolu tajaawazu anhu baal leen ko malaaka yi ko doon réglé mu ne leen bàyyi leen ko moom muy jaam ni ñoom bu mënee lool ci ñoom man mi ko moom maa ko gën a tabe fuuf gën koo baax maa ko dàq loolu baal naa ko baal leen ko rawahu muslim xadis jàng ci muslim wa kadalika al buxaariyu wa nasaiyu maanaam mbokk yi ku nekk xëy na am na ñu la mën ci julli yu bari xam xay na am na ñu la mën ci koor yu bari waaye bul nangu ñu mën la ci lépp bu ñuy wax julli yu bari ak koor yu bari nag naafila ak ya des a tax di farata yi ñoom ñooy tax ñu nekk di jullit li ko yonentu waxee sallallahu alayhi wa li ñuy njëkk a seet mooy julli yowmal qiyaamati su baaxut moom duñ duñ duñ continuer tax di julli tey def naafile it ndax bu